mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti yi tey nag dañuy dal di ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door foofe ci Tiwaawan na nag ci poste gendarme bu nekk foofee ci Tiwaawan ginnaaw nag tiis ak nakar bi yéenekaay yi xëy rek fësal ko di ab gendarmerie bu nekkoon foofee ci Tiwaawan pël daal xaru ci biir néegam moom nag kii di wuyoo ci turu Hubert Faye niki ajuma la daal di pendre li nga xam ni moo di boppam moom nag ab corde rek la jël taxu ko ci baatam taxu ko ci buum moom nag di fàttali rek gendarme la woon moom mee nag di Hubert Faye laata muy def jëf di ni mel dafa woo ab cousinam daal ni ko rek na ko fekk ci appartement te bu ñëwee na ubbi ab tiroir tiroir ba nag ab lettre la fa defoon lettre maanaam ab bataaxal rek la fa bàyyee buy wane rek lu tax moom mii di Hubert Père Faye nekkoon ab gendarme daal di faat boppam waaye nag bataaxal bi bañ ko toppee ba ci biir moom moomu nag di Iber Faye lenn rek la ci ki nga xam ni moo di cousinam ak ay mbokkam daal di fësal mooy moom mee di Iber Faye dafa nekkoon ci ay jafe-jafe rawatina nag ab um, jàngoro boo xamante ni pour sax mu xëy nekk nit day naan ay garab naka noonu nag comme que moom dafa jàppoon ne toll na bu xëyee fa mu naan garab pour nekk nit lii gën moom muy faat boppam ma Tivaouane Peulh la dëkk ci ab quartier bu ñuy wax quartier sopp nabi dañuy des foofee ci kër Massar yi ab receveur rek bu jam ab xale bu jigéen li ne mel nag mu ngi xewee ci ligne boobu noonu di bis tata bu sandis xam ne day jógee jaxaay di daw jaxaay géejawaay géejawaay jaxaay moom nag bi lépp bis nag xam nañ ni rek ku ko xam day daal di fees ay nit ndaxte ñiy jógee géejawaay di dem jaxaay dafa takku loolu ba tax na nag bis bi dafa fees ab ndaw daal dugg mais yi ki lee nag di receveur bis bi daf ko wax rek ngir mu puus pour xajal ñenn ñu ñu yéeg te fekk bis bi dafa fees xale bu jigéen bi xool xam ne fii rek amul fenn foo xamante ni rek munu faa puus mu taxaw fi mu taxaw bi mu taxawee fi mu taxaw moom moomee di receveur bi nag daal di wax wax wax ba sonn ndaw si faalewu ko ci la jékkee daal koy wax euh, lu lu xam ne tegg newul rek ndaw si daal di koy tontu naka noonu nag ñu nekk di tonton ki la di receveur bi génn ci cabinet boobu mu nekk daal di jël ab paaka rek daal di ñëw rek bu jam si ko naka noonu nag ñu dox ci digganteeg xale bu jigéen bi daal di xaw a maytu li nga xam ne moo di paaka ba mu ñëwee nag jot na ko ko rendi ci put bi mais nag li mu ko rendi nekkul loo xamante ne garaaw na waaye nag ginnaaw ñi nekkoon ci biir bis bi ñoo ko daal di xaw a jàpp rek ba nangu li nga xam ne moo di paaka li ni mel nag ba muy am di fàttali rek ki la nga xam ne moo di dawal bi lépp tata mi ngi woon ci biir bis waaye dafa toog jàpp ñàmbaram ba coow li ak si foofu ba maanaam receveur bi jam ndaw su jigéen si muy doog a intervenir ba mu intervenir rek nag ndaw si ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci bus euh, bi lépp soixante-dix daal di wàcc naka noonu nag la ko ñi nekkoon ci bus mi nekkoon nañu dem fi nga xam ne moo di police euh, daal di porter plainte léegi nag si lañu gisee ab euh, policier bu taxaw foofu rek ñu daal di dem ci policier bi policier bi xamal leen ni rek bus bu romb yor na li nga xam ne moo di immatriculation wam naka noonu nag li ni mel nag dañ leen koy toppaatal fi ak ay fan yu néew ginnaaw nag tey bi nga xam ne journal bi xëy na fësal génn àdduna sportif bi di Salif Diallo dañuy desandi ci gouvernement wu Sénégal rawatina dem jëli ji ki nga xam ne moo di ministre bi di woyoo si turu Mary Teuw Niane ginnaaw ab sorti bu mu amal rek di jëmale ay kàddu di àddu rek ci wàll bu maanaam réseaux sociaux li nga xam ne moo di WhatsApp Facebook Twitter Snapchat ak TikTok ak lépp loo xamante ni rek ci wàllu nouvelle technologie la di ay application moo xam Hafiz Abla moo xam application bu mën a nekk moom nag di Mary Teuw Niane wax na si xalaatam nee na li ni mel nag am na ñoo xamante ni jànguñu jonguñu na tamit nag fii ci Sénégal néew na noonu nga gis nit te nekkul li nga xam ni dafa bokk ci ab groupe WhatsApp moom nag mi ngi xamal nag li leen di réseaux sociaux mën a nekk loo xamante ni dañ cee mën a jàng jumtukaay la pour nit rek mën ci xam yenn yi waaye nag dafa jàppal ne rek que yi lépp réseau niñ koy utiliser maanaam niñ koy jëfandikoo dafa xawut a jaar yoon ba tax na nag mi ngi woo ki nga xam ne moo di président de la république euh, bu Sénégal ji nitu réew mi di Macky Sall ngir rek mu jël ci ay li nga xam ni daan yoo xamante ni dina métti trop pour rek ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir réseau yi dafi def naka su dul noonu dañuy ñëw ci collectif féministe di ab groupe rek yoo xamante ni ay jigéen ñoo ko jiitee ñoom nag li leen ñor mooy lépp luy mettit fii ci Sénégal di buntu xatal ak yàq yi nga xam ne dañ koy def ci jigéen ñu xeex ko ba tax na ñoom ñee di woowee seen bopp collectif féministe tey bind nañu ab ab bataaxal jox ko ki nga xam ni moo di président de la république du Sénégal bi lépp bataaxal nag ñoom ñee di féministes yi liñ ci bind mooy ñoom dañ leen di daal di sàkku ba pare daal di leen rey di wax rek que réew bi ñu nekk réewub teraanga la te nekk réewub diine la te Sénégal nga xam ni nag ba tax na nag ñi lay féministe ñi ngi wax rek que dañoo war a xoolaat li nga xam ni moo di ba wàllub yelleefu jigéen fii ci réew mi te ndaxte niñ leen di sàkkoo bu pare di leen rey dafa ñaaw trop si dëkk bu mel ne dëkk bu Sénégal la ñoom nag lii moo leen métti tey ñaax njiitu réew bu Sénégal mu jël ci ay mesures yu baax a baax bokki internet yi dañuy dem foofee ca Congo dem jëli fa ab concert bi nga xam ni waykat bu mag bi ñu ràññeeku loolu fépp ci àdduna di wuyoo si turu Fally Ipupa boo ko amaloon foofee ca stade bu gën a rëy foofee ca Kinshasa bi lépp concert nag ni mu mujjee nag kenn rafetlu xalaatu ko di ab mujj boo xamante ni daal tiis na loolu ginnaaw juróom-ñetti nit ñu nekkoon ci bileem bi lépp conseil ñoo di ñàkk seen bakkan ci bi lépp conseil juróom-ñetti nit yooyu nak kenn ki rek policier la woon waa ñu ci des ñëpp dañoo daggoon seen billet ñëw rek ngir seetaan bi lépp waykat di fàttali rek li ni mel nag li ko waral du leen lu dul ab buuxante bu amoon ci bi lépp moo yóbbee li ni mel bokki internetu seen Actu TV tey nag xibaar yi di daje ëllëg waaye laata loolu way leen di abonné te bu leen di fàtte di partagé te di appuyé wu ci vidéo te di appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information